ngir yàpp bu baax a baax ndongo daara yi nga xamante ne ñoo nekk ci classe su terminal ci diwaan bu mbakkee professeur Assane Ndiaye daal dinay amal benn synthèse ci français ngir rek daal di wax ndongo daara yi naka la jaar ak rek yan pexe la ñu mën a lal su fekkee ne daal dinañuy tiim épreuve français yi nga xamante ne moom lañ leen war a jox ci examen bi nga xamante ne dañ leen di natt jëmale ko ci wàllu bac bi ndongo yi nag ñoom daal dinañuy wane seen mbégte ginnaaw ba professeur Assane leerale yu bari yi nga xamante ne ay lënt-lënt la ci seen bopp yi professeur Assane Ndiaye nag ci diwaanu Mbàkke ak Sénégal wala sax ci bitim réew ñu bari daal di nañu ràññeetle xareñam ginnaaw ba ñu ko daal di joxe raaye ci at yee ñi wees ndaje mi nag nga xamante ne moom mooy dimbale ñii di ndongo daar yi nga xamante ne ñooy def bac ngir rek ñi daal di am li nga xamante ne moom mooy gis-gis ci yenn yi nga xamante ne ay épreuve yu leen war a jox te ñu mën koo waajal la protection des élèves du département de Mbacké te soxna Asto Walo Mbacké daal di koy taxawal association bi nag mi ngi yëngatu ci yu bëri yi nga xamante ne day yombalal ndongo daara yi li nga xamante ne moo leen di dimbale ci école bi